képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi xanaa dellu siwaat rek di santaat yàlla bu baax a baax ci eh, jàmbaar ci gor si nga xam ne jëfam ji wax dëgg yàlla kenn du ko lam-lamee jëf la ju lislaam di kontaane jëf la joo xam ne ju siggil Sénégal la jëf la joo xam ne honor la dafa dafa dafa honoré réew mi muy Idrissa Gana Gueye may am te lool nag ci di dégg ak di gis ay soutien yoo xam ne day bàyyi ko ci bépp réew di ko wan ne li nga def mooy dëgg li nga def moo gënal yàlla ndax képp koo xam ne yaa ngi promouvoir ak góor jigéen wax dëgg yàlla yàlla bépp jullit bu dëggal tam leer ko ne yàlla rek a tax muy def waru ca ànd ak lu mu mën a doon parce que nag euh, jëf ji dafa dafa dafa setal deru réew mi damaa gis ci jamono yi nga xam ne dañoo dóor Égypte égyptiens yi mer ci laser yi ak yu bare bare bare ruube yi sénégalais yi doon def ma gis benn égyptien bu bind ci page am ne man du ma bañ Sénégal mukk daal di indi cause yi tax nag moom mu bëgg Sénégal moom dama bëgg Sénégal pourquoi parce que Sénégal dafa bëri ay jullit bokk na ci réew yi ëpp ay jullit ci àdduna bi pourquoi parce que Sénégal mooy réew lu ñu mokkalal alxuraan ci xale yi euh, pourquoi parce que Sénégal réew la moom wax yu bare bare bare bare fu ñu jongante ci alxuraan ñoom ñu wax yu bare bare daal ne lii moo tax ma bëgg senegal alors kon sa Gana Gueye dafa dëggal waxi naar boobu wax dëgg yàlla dafa da ko dëggal ndax nag euh, jëf la joo xam ne ci àdduna bépp ñëpp koy dégg képp koo xam ne nag ab jullit xaqan nga day doon sa mbirum bopp di def lu réeré ci yow moo tax may ñaan sénégalais yëpp ku ko ci yàlla man loo nga def lépp luy wane ne yaa ngi koy euh, soutenir di publier dégg nga ci sa page Facebook ci sa compte YouTube ci ci TikTok pour wane ne suñ doom tooñut kenn yéen yéen a tooñ yàlla bukk caa yóbbu moom moo gàntal am na ci sañ-sañ Sénégal nag lépp luñ mën ci jàppale Idrissa à partir d'aujourd'hui lépp luy taxa nit yëkkati ko war nañ ko defal ndax daay yëkkati dëgg dëgg la fekk yàlla teg mu ne lii mooy dëgg mu jël loola lañ ko bëggoon a yóbbu ne wax dëgg yàlla dégg naa ko wax ci ñoom euh, Souleymane Sy Diop laa dégg wax ko maanaam contrat contrat de football la waaye nag du contrat promouvoir ay góor ji ak yeneen ak yeneen kon daal Idrissa wax dëgg yàlla siggil nga sunu réew sagal nga sunu réew jullit ñi nag ci fépp ña nga cay euh, profité di la soutenir kon Sénégal seen yi fi bopp la bu kenn des monsieur le président de la république bien que ne def nga benn publication ci sa page Facebook waaye pour man euh, mën naa gën a a bind ambassadeur ñu ngi ci ginnaaw Idrissa di ko xamal ne lii mu def du tooñ du du adduna bu tukki dafa fekk lu yàlla bañ mu bañ ko képp kon nag la tax ñu signé moom muy football loolu gàntalagu ko kon ñu ngi ñu ngi ci ginnaawam ñun Sénégalais yëpp ñun adduna bépp lii moom wax dëgg yàlla lu lu jaadu la di sant moo dem leader nga xam ne it euh, nañ ko jërul lim en daal mbir la moo xam ne Sénégal war na ci tax parce que français yi dafa bari ci ñoom ñoo xam ne ay kàngam lañ ci seen biir ay ponkal ba noppi di ay góor jigéen ñooñu nag fuñ àddoo nga yëg ne ñii yëf metti na leen te buñ leen bàyyee ak moom mën nañoo dem ba indil ko ay ay yoo xam ne ndax xam ngeen ne ñaari mbaam yooyu subhanallah maa ngi tuub ñaari ñaari saay-saay yooyu doon euh, xëccoog Macron donte sax moom euh, xaw naa doy waar waaye ñoom moo leen tane ndax benn ñoom ñu ras lañ ñu bañ diine lañ ñu bañ lislaam lañ am na ci kook moom maanaam yëf yi koo jël def ko yëf yi boppam naan Idriss dañ ko war a sanctionné dañ ko war a nangam Idriss organiser nag tooñut football la signé ak ñoom kon ci terrain football bi mën naa mën naa mën naa football waaye nag bu ñu ko bëggee def loolu leneen lu mën a doon te neexut yàlla am na sañ-sañu bañ kon maa ngi koy soutenir di ñaan yàlla sàmm ko te ko musal ko yàlla ko yàlla defal euh, saadatu daari ni yàlla ko yàlla gën a yéege ci lii barke Xadim Moustapha ndax dëggu yàlla képp la dàkk yàlla même jël dëggam nag moo jox Mbappé lam yor moo jox euh, Messi lam yor moo jox Ronald Ronaldo lam yor dégg nga moo jox euh, Sadio la la Idrissa ne lii nga yor kat mooy dëgg képp dëgg tax mu def lii mu def kon yàlla moom gis na ko waaw bu ko neexee mu tiim ku mën a doon jërëjëf wax dëgg yàlla yëf yi moom dama ci dama ci am mbégte ba noppi nag am na xatu xol lool ci bañ ñu seetaan ko ndax tubaab bi dañoo bëri pexe ma waaye nag yàlla leen ëpp ëpp ay pexe kon Idrissa ñi ngi koy santaat di ko ñaanalaat yàlla sàmm ko aar ko di ñaanal mboolem ko xam ne yaa ngi koy soutenir di ko wan ne maag yow ñu ànd li ciy nuru bànneex ak li ci nuru naqar ndax euh, dara du ci naqar dara du ci euh, bànneex fa yàlla dëgg rek la sàkk euh, euh, dëgg la dëgg la dàkk te yàlla moom dëgg kon bu dee am na lu ciy nuru naq wala bànneex bànneex a ci ëpp ndax yàlla dana def leen moom mu def kon ñu ngi tubaat bu baax a baax tey siyaarewaat waaye ñu ngi sàkku ci ku ko man rek ay ñaan ak lu mën a doon nga ñaanal Idrissa ndax lii ab sag siggil na sunu réew sagal na sunu réew wane na ne kat Sénégal nekk lañ doon wax naan quatre vingt ko déggee ci àdduna bi daañu xam daañ parce que daañ gëstuwaat ne waaw Sénégal Idrissa Gana Gueye lii mu def xanaa Sénégal dañoo bañ kon góor jigéen daañ ko gëstuwaat daañ ci defaat yeneen yitte waaye alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi xanaa dellu siwaat rek di santaat yàlla bu baax a baax ci eh, jàmbaar ci gor si nga xam ne jëfam ji wax dëgg yàlla kenn du ko lam-lamee jëf la ju lislaam di kontaane jëf la joo xam ne ju siggil Sénégal la jëf la joo xam ne honor la dafa dafa dafa honoré réew mi muy idris Gana Gueye may am mbégte lool nag ci di dégg ak di gis ay soutien yoo xam ne day bàyyi ko ci bépp réew di ko wan li nga def mooy dëgg li nga def moo gënal yàlla ndax képp koo xam ne yaa ngi promouvoir ak góor jigéen wax dëgg yàlla yàlla bépp jullit bu dëggal tam ko ne yàlla rek a tax muy def waru ca ànd ak lu mu mën a doon parce que nag euh, jëf ji dafa dafa dafa setal deru réew mi damaa gis ci jamono yi nga xam ne dañoo dóor Égypte égyptiens yi mer ci laser yi ak yu bare bare bare ruube yi sénégalais yi doon def ma gis benn égyptien bu bind ci page am ne man duma bañ Sénégal mukk daal di indi cause yi tax nag moom bëgg Sénégal man dama bëgg Sénégal pourquoi parce que Sénégal dafa bëri ay jullit bokk na ci réew yi ëpp ay ci àdduna bi pourquoi parce que Sénégal mooy réew mi lu ñu mokkalal alxuraan ci xale yi euh, pourquoi parce que Sénégal réew la moom wax yu bare bare bare bare suñu jongante ci alxuraan ñoom ñoo ci wax yu bare bare daal ne lii moo tax ma bëgg Sénégal alors kon Idrissa Gana Gueye dafa dëggal waxi naar boobu wax dëgg yàlla dafa da ko dëggal ndax nag euh, jëf la joo xam ne ci àdduna bépp ñëpp koy dégg képp koo xam ne nag ab jullit xaqan nga day doon sa mbirum bopp di def lu réeré ci yow moo tax may ñaan sénégalais yëpp ku ko ci yàlla man loo nga def lépp luy wane ne yaa ngi koy euh, soutenir di piblier dégg nga ci sa page Facebook ci sa compte YouTube ci ci TikTok pour wane ne suñ doom tooñut kenn yéen yéen a tooñ yàlla bukk caa yóbbu moom moo gàntal am na ci sañ-sañ Sénégal nag lépp luñ mën ci jàppale Idrissa à partir d'aujourd'hui lépp luy taxa nit a yëkkatiku war nañ ko defal ndax daay yëkkati dëgg dëgg la fekk yàlla teg mu ne lii mooy dëgg mu jël loola lañ ko bëggoon a yóbbu ne wax dëgg yàlla dégg naa ku ko wax ci ñoom euh, Souleymane Sy Diop laa dégg wax ko maanaam contrat contrat de football la waaye nag du contrat promouvoir ay góor ji ak yeneen ak yeneen kon daal Idrissa wax dëgg yàlla siggil nga sunu réew sagal nga sunu réew jullit ñi nag ci fépp ña nga cay euh, profité di la soutenir kon Sénégal seen yi fi bopp la bu kenn des la république benn publication ci sa page Facebook waaye pour man euh, mën naa gën a kii parce a ko ne kat ñu ngi ci ginnaaw Idrissa di ko xamal ne lii mu def du tooñ du du bu tukki dafa fekk lu yàlla bañ mu bañ ko képp kon nag la tax ñu signé moom muy football loolu gàntalagu ko kon ñu ngi ñu ngi ci ginnaawam ñun Sénégalais yëpp ñun adduna bépp lii moom wax dëgg yàlla lu lu jaadu la di sant moo dem leader nga xam ne it euh, nañ ko jërul lim en daal mbir la moo xam ne Sénégal war na ci tax parce que français yi dafa bari ci ñoom ñoo xam ne ay kàngam lañ ci seen biir ay ponkal ba noppi di ay góor jigéen ñooñu nag fu ñu àddoo nga yëg ne ñii yëf metti na leen te buñ leen bàyyee moom rek mën nañoo dem ba indil ko ay ay yoo xam ne ndax xam ngeen ne ñaari mbaam yooyu subhanallah maa ngi tuub ñaari ñaari saay saay yooyu doon euh, xëccoog Macron donte ne sax moom euh, xaw naa doy waar waaye ñoom moo leen tane ndax benn ñoom ñu ras lañ ñu bañ diine lañ ñu bañ lislaam lañ am na ci kook moom maanaam yëf yi da jël def ko yëf yi boppam naan Idriss dañ ko war a sanctionné dañ ko war a nangam Idriss organiser nag tooñut football la signé ak ñoom kon ci terrain football bi mën naa mën waaye nag bu ñu ko bëggee def loolu leneen lu mën a doon te neexut yàlla am na sañ-sañu bañ kon maa ngi koy soutenir di ñaan yàlla sàmm ko te ko musal ko yàlla ko yàlla defal euh, saadatu daari ni yàlla ko yàlla gën a yéege ci lii barke Xadim Moustapha ndax dëggu yàlla képp la dàkk yàlla même jël dëggam nag moo jox Mbappé lam yor moo jox euh, Messi lam yor moo jox Ronald Ronaldo lam yor dégg nga moo jox euh, Sadio Mané la la Idrissa ne lii nga yor kat mooy dëgg képp nga dëgg tax mu def lii mu def kon yàlla moom gis na ko waaw bu ko neexee mu tiim ku mën a doon jërëjëf wax dëgg yàlla yëf yi moom dama ci dama ci am mbégte ba noppi nag am na xatu xol lool ci bañ ñu seetaan ko ndax tubaab bi dañoo bëri pexe ma waaye nag yàlla leen ëpp ëpp pexe kon Idrissa ñi ngi koy santaat di ko ñaanalaat yàlla sàmm ko aar ko di ñaanal mboolem ko xam ne yaa ngi koy soutenir di ko wan ne maag yow ñu ànd li ciy nuru bànneex ak li ci nuru naqar ndax euh, dara du ci naqar fa yàlla waaye dara du ci euh, bànneex fa yàlla dëgg rek la sàkk euh, euh, dëgg la dëgg la dàkk te yàllaa moom dëgg kon bu dee am na lu ciy nuru naqa wala bànneex bànneex ci ëpp ndax yàlla dana def leen moom mu def kon ñu ngi tubaat bu baax a baax tey waaye ñu ngi sàkku ci ku ko rek ay ñaan lu mën a doon nga ñaanal Idrissa ndax lii ab sag siggil na sunu réew sagal na sunu réew wane na ne kat Sénégal nekk dañ doon wax ne waaw Sénégal Idrissa Gana Gueye lii mu def xanaa Sénégal dañoo bañ kon góor jigéen daañ ko gëstuwaat daañ ci defaat yeneen yitte waaye alhamdulilah jërëjëf Idrissa